loolu na ko ndawi lislaam yëpp bàyyi xel te nag ñàkk yaru lislaam la kum wóoroon ne ku yàqalab julit yowmal qiyaam nga dem ci safara nga gëm loola doo ko def waaye gëmuñu yàlla gëmuñu àllaaxira rawatina nag dañ ciy dem ba ñu xam ñoo xam ne dañuy wax ne jullit lañ sax waaye ña ngay tuddoo fu ñu féetee ne ñun dañoo am ab sëriñ diw la ah ko kay boo àndeek moom moom lu la neex def rek moo koy gàddu mu dañ lay nax rek moom dafa mën a gàddu dara mënul sax boppam xamul fu mu jëm su dee xamoo ci lu mu nekk su dundee xamul fu mu jëm balaa koo yëg foog ñu tàggee la ko mu naan loolu kañ la liñ lay def def nañ la ko bu yàgg ma ne nit ku nekk yaay gàddu sa bopp ndaw yi bàyyi leen xel loolu ku nekk sa jaamu yàlla yow la gannaaw loolu am na lu ñuy tuddee ay média média mooy baat bi ñuy déggati ci suñ jëmm jéeg baat bi ñuy dégg déggati ci jëmm jéek kayit bi génn bés bu nekk ñu di ko xool wala kayit bi génn ay bés bu ne benn yoon kayit bi génn weer wu ne benn yoon wala kayit yi génn ñaari weer loolu la ñuy tuddee ay média ay média lu mu doon jëriñ mooy xamal nit ki la mu xamuloon rek jox la xibaar ci li xamuloon wala boog muy média yoo xam ne day jàngale culture lay joxe ci histoire ci géographie ci science ci jikko yu rafet loola moo doon njëriñ ay média waaye suñuy média ñun lan la su ma amee sama journal sëriñ bi lay topp ba ci biir këram xam lu muy reeree lu muy añee fu muy nekk xami soxnaam xami doom ak fu muy dugg boo lëgee ma bind ko ne benn waaye nga nii day dafay xuloo ak jabar ja ku gis ne eh bi ci dal di ko jënd suñu média di léegi loolu la topp ak problème mu personnel yi jàmbur dugg ci awray jàmbur yi xas ay nit génnee ay secret jàmbur léeg-léeg muy dëgg léeg-léeg du nekk dëgg li léegi day mu lu mooy nekk suñuy média moo tax journaux yu bari na mais nekku ci ab daal dafa war a nettali la xewoon démb fekkee woo ko quartier sàngam amoon na conférence démb diwa ko doon def diwa ko organisé fekkewu ma ko mu nettalil ma ko ma liir ko loolu doon jëriñ wala mu war laa jox beneen culture wala mu jox la beneen xam-xamu science média loola doon jëriñ ñun nag suñuy média léegi kañaan la kañaan ak xeexante ak defante sanniwante ay xoliti banaana ci sa kanam suñuy média di léegi noonu am na lu gën a pire te gën a garaw ñàkk gi ñàkk lislaam tax na ba xatta journaliste yi mënu ma wax ne ñëpp la waaye bari na de da ñëw jox ko xaalis ne xasal ma diw mu bind wax lu ko neex loolu am na fi am na ci ñuy demanti tribunal sax ci loolu dangay jox benn journaliste xaalis rek mu wax journaliste yàq nañu seen métier métier mu baax la woon métier métier journaliste que je suis métier mu baaxoon la ndax da daan am indil nit ki ay njëriñ waaye bu demee ba léegi jikko nekkatu ca ba ñëppay foog ne dañ lay jënd ngay wax moom loolu jikko nekk yàqu na amatul benn valeur te loolu ña ca nekk ñoo ko yàq ah liberté baax na waaye liberté waraq baaxut liberté mbaam fu la neex nga lëfin fa fu la neex nga këfin du baax xam nga mbaam moom bu bëggee lëfin du seet ndax fii seet naag seetu day def rek loolu mooy xurriyatul ximaar baaxut jar na mooy tandiku liberté daal baatab liberté baatab démocratie wax islam day xamna ni ne ko wala ñu ñu koy ndil bok dafa am luñ ci laxas démocratie nit ñi dañuy wax ni moy mané lima gis ñu ne moy démocratie daganu ndax moy yow anduñu samam non nga dañuy xex bëgguma la ma wax nak ni bëgg na la du nafaq la sa adversaire moy sa adversaire rek bo ne bëgg nga ko it lolu amut lolu nifaq la fekke démocratie moy lolu nafaq la ak ñak kilifa moy liberté moom moy ñak kilifa lolu neex nga wax fu la neex nga taxaw waxe man citoyen la man amna ci liberté ah démocratie mo fi am caaxaan la tubaab yi ñoo ñu ko indil te ñoo ñu mën de nga tubaab yi bu ñuy xëccoo àddina banta du dem ñoom ñi ñoo ñu ko indil waaye ñoo ko moom. mais ñun agun foofu ñun avancé demagun na dañ leen ko waroon a bàyyee nekk ca lan tolloog. ne luñ tolloog mooy buur nekk buur baadolo nekk baadolo. xalaat bu tardé la waaye dañ cee toll nag foofu leen toll. xalaat bu tardé la waaye foofu leen toll. gis nga bu ñu yóbboo ci mag yi du sotti. du sotti dañ fay yeggagut. tubaab yi dañ ñuy nax rek. tubaab yi bàyyeeguñ ñu de. colonialisme

te dama ne woon bu ma amee certificat comme am naa certificat d'étude français damay continuer waaye eh, maître bi bëgg ma kii ma ne nag yéen yéen a ngi jàngal beneen culture parce que lu tax fu beer nekk li mu naan mënu fa nekk te mënu faa nekk pourquoi j'aime de la beer culture booba lañ ñu bëgg jàngalaale moo tax colonialiste dañoo fort bu ñu lay jàngal du ñu yem ci làkk wi dañ la ciy booleel culture beeg aada beeg yëpp ba pare nag te yow doo ñoom su ko defee doo dem fii de la ñuy yàqee